وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفيه عن نكدي sunu mbokk yi nga xamante ne yéen a ngi ñuy seetaan ñu ngi ànd ak Euh, ambassadeur bi nga xamante ne mooy ambassadeur euh, réew mi di Éthiopie nga xam ne dafa ñëw moo ngi nekk moo leen nekkal fii ci Sénégal ñun ñëpp xam nañ euh, wàccuwaay bi nga xamante ne Éthiopie am na ko ci suwaarul islam xam nañ ci xabasa ak wàccuwaay bi mu ci am ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu njëkk a gàddaay foofu la leen yabal ngir ñu taxawal lislaam waaye itam ngir mën a sàmm seen pas-pas ak seen diine eh, ñu ngi fii ci Touba di dalal tey sunu gan muy eh, ambassadeuru eh, Éthiopie ñu koy dalal bu baax a baax di ko jox kàddu ngir mu nuyu waa ñi xam ne ñooñu seetaan waaye itam xamle ci boppam Euh, ginnaaw loolu ñu mën a boo xam ne ba mu mën a bu ñu tàmbalee waxtaan wi bismillah shukran maali safir al yow euh, ñu ngi lay sant bu baax euh, baada ziyaaratikum li tuuba wa nahnu raafaqnaakum ila al masjid al jaami wa ila rawdati cheikh ahmad ibn habibullah cheikh al xadim summa baada dalika التقينا بفضيلة الشيخ محمد المنطقة الخليفة عام للتراث المهنية حفظه الله ما هو أو ما هي انطباعاتك عن هذه الزيارة؟ maa ngi sant yàlla bu baax a baax di jullikent bi euh, tey daje nañu ak euh, kilifa gu mag a mag ci Sénégal ci lislaam euh, xam ñëpp xam nañ wàcc waayam ñoo gisante ak moom waxtaan ak moom xamante ak moom loolu mbégte la ci man xamante ak kilifa gu mag gu mel ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Euh, am na kilifa gu am gu am solo ci fii ci Sénégal euh, taxul nag ñu am xam-xam bu xóot lool ci lislaam ci fii ci Sénégal wala ñu xam dëgg-dëgg histoire bi nga xamante ne mooy ci Sénégal ndax Sénégal fi mu nekk mooy ci soowu jant su Afrique te eh, ñun fi ñu dëkk mooy eh, penku euh, waaye nag maa ngi doon jàng ci téere yi ak xam lan mooy mooy Sénégal ñu fi dëkkee lan mooy histoire xam ak euh, nan la ñuy dundee ah, ci biir euh, jàng boobu ma ko doon jàng nag ci la xamee kan mooy Sëriñ Tuuba ma euh, déggee ci ne nit ku baax la koo xamante ne nit ku mag a mag la koo xam ne bu Sénégal dong moo ko moom waaye adduna def ñoo ko moom nit la koo xam ne lislaam def ko bokk waaye waa Éthiopie itam mën nañu wax ne bu may jàng histoire Sëriñ Tuubaa damay gis ne dafa am lu bëri lu mu nuróole ak sunu sëriñ ñi nga xamante ne ñu nekk foofu ci Éthiopie gis ne am na ay kilifa yu mag yoo xamante ne ay sëriñ yoo xam ne seen histoire ak histoire Sëriñ Tuubaa dañoo nuróo lool gis seen jeexital seen xam-xam dafa nuróo lool ak bu Sëriñ Tuubaa bu ma koy jàng lim bi di moom day mel ne maa ngi liir kenn ku bokk ci sëriñ soosu nekk foofu ca Éthiopie su may jàng tamit histoire bi day mel ne maa ngi ci sama digg njaboot nekk sama biir réew ci sama waa nekk ci biir jullit ñi nga xamante ne ñoo nekk Éthiopie ñun ñi nga xamante ne ñoo julliti Afrique dañoo war a xamante dañoo war gindikonte dañoo war a fexe ba gën a jokkaloo te jegewoo ñu euh, dimbalante jëflante loolu mooy sama jubluwaay ci ñëw bi ma ñëw fii tey ngir ñu gën a mën a jegewoo diggante Éthiopie ak Sénégal waaye ñu gën a mën a jëflante bu baax bokkandoo di jëfandoo jëf yoo xamante ne day mën a jariñ ñaari réew yëpp jërëjëf euh, ambassade bu ñu déggoo déggee li nga wax ci li nga xamante ne niróole na ko ci diggante sëriñ si nekk foofu ci Égypte ak fii ci Sëriñ Tuuba damay laaj lan mooy euh, jëflante bi nga xamante ne moom la jullit ñi am ak euh, relation yi nga xamante ne am na ci diggante jullit yi ak euh, foofu ak fii ci Sénégal ak jullit ñëpp. في تاريخ الإسلام دورها ومكانها أن الصحابة إذا هجروا يوم أن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة التوحيد دعوة الإسلام حقيقة دعوة التحرر من عبودية إلى عبادة الله سبحانه وتعالى يوم أن اضطهدوا المشركون أصحابه يوم أن آذوه اختار بلدا اسمه حبشة يهاجر كان له مثلا جار دخل اليمن ما اختارها مثل أخرى حضارة مثل الروم وفرس مصر وكذا ولكن اختار أفريقيا ما اختار أوروبا ولا ما اختار غيرها من مكان ولكن اختار أفريقيا وعن طريق الإثيوبيا ودخل دخلوا وقال وشهادته المعروفة هناك ملك لا يظلم فيه أحد ولأول مرة قرأ القرآن في أمام الملك في العالم داخل أصحاب الشام وخاصة سورة مريم قبل أن يتوب الصحابة رسول الله إلى الحبشة نزل سورتين في مكة أولى وسورة الكهف ويتكلم عن الفتية الذين خرجوا من بلدهم للدين وكذا وكذا ونزل سورة مريم لأن بلد أثيوبيا كانوا نصرانيين naka doon tamit suratu Maryam mi ne ñoo wax lu bëree bëri ci diggante jullit ñi ak ñi dugg ay jullit buur bu fa nekkoon Najaashi dalal leen dalal bu am solo loolu nekk lu am solo ci lislaam ci yoon wi mel ni la lislaam liggéey foofu ci Abasha eh, am na saaba yoo xamante ne dund nañ fa waxtu fukki at ñu bëri faatu nañ fa ñu denc fa seeni barab nekk fa ca بعض الصحابة قبر الصحابة يوجد ذاك المكان الآن يزار هناك زيارة Eh, sanawiyya ñu foofu ñu leen am na bis yu ñu leen fay taxawal yoo xam ne at mu jot lañ koy def di siyaare sax ñu fa nekk ak eh, ki nga xam ne mooy négation mm, eh, loolu nag lañ ciy déggee mooy day mel ne yéen nag jullit ñëpp ñu xam loolu noonu xam itam histoire bi nga xam ne moo dox ci diggante islam ak Éthiopie waaye itam xam li nga xam ne moo dox diggante Éthiopie ak euh, Sénégal waaye euh, ak Éthiopie ak mboolem Afrique yëpp moo ko moo lay waxee noonu euh, ndax lu am am solo la am na doole loolu nga xam ne mooy am relation yooyu ci wàllu économie ci wàllu yëpp waaye dañoo war a ñun ñëpp àndandoo nekk benn. ويكون بعضهم سندا لبعض nekk kenn ku nekk di dimbale sa morom jërë nga xamante ne moom lay def jërëjëf euh, ambassadeur jërë ñu bëri dañuy jàng histoire l'islam xam baax a baax ay coppi yi taxawaayam ci l'islam waaye nag dafa bëri ci Afrique ñoo xamante ne dañoo réere lool lan mooy euh, taxawaay jullit ñi ak seen dundin foofa ca Éthiopie mooy seen nan la ñu dundee ñoom jullit ñi nekk Éthiopie المسلمون في الحبشة كثيرون جدا الإحصائيات تقول فوق 50 وهذا فوق 50% من الشعب الإثيوبي الشعب الإثيوبي عدده تجاوز حدود 100 مليون ولذا الشعب المسلم الإثيوبي وأكثر من 50 مليون كما يقولون كما يشيرون بعض وهذا عدد كبير جدا وهناك حول الحبشة مسلمون مثل السودان ومثل أريتريا كمان كثير من المسلمين والصومال وجيبوتي وغيرها yu mel ne Djibouti ak yeneen dëkk yoo xam ne dañoo dend ak Éthiopie euh, euh, Éthiopie am nañ histoire euh, ci l'islam histoire bu yàgg boo xam ne bu am solo la التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين في حل التعايش السلمي هناك بعض المشكلات السياسية ولكن من جانب السياسي ولكن التاريخ الإثيوبي الشعبي يشير أن هناك تعاون وتضامن وتعايش سلمي بين المسلمين وغير المسلمين في الحبشة وهذا mumkin indallah wa yadullu ala nag bu fekkee ne mën na am lenn luñ ci mën a jàngatee rek mooy saqafat alsaxaba allati ataw xeet yi nga xamante ne saxaaba yi fa ñëwoon bàyyi nañ ko fa baada saxaaba huna kaanat hujuraat kathira hijra kathira am na gannaaw sax ñu bàyyi ko ci fi zamani ñu fa ñëwaat ñoo xamante ne ci wa fi zamani fiant bi jógee ñu ko wuutu ci jamono Abbaas jamono Umayya ñoo xam ne ñoo gàddaay ñëw Éthiopie saxaaba ba ci sëti Sidna Ali ak ay doomam sax ñëw nañu foofu nga xamante ne mooy Éthiopie eh, ci ay eh, tukki yi fay amal ñoo xam ne ñu bëri ñëw nañu fa am na ci ay ay xuraan yoo xam ne sax loo xamante ne lahu alaaka maa alxabasha yoo xamante ne dafa am relation bu baax a baax ak xawaali sitta wa salaasina am na fi itam xadis nabawi sharif daa alaaka benn ci ay xadis yoo xamante ne dafa wàcc ci xabasa xataa salaat alxaayib fi salaat aljanaza hunaaka salaat alxaayib wa sababu rajuli alxabashi ismu najashi maata fi lxabasha wa salla nabi sallallahu alayhi wa sallam salatan gaiban fi almadinati lmunawara yowma an samia mawtahu qaala maata axuna fi lxabasha yusalli lahu salatan wa kaana wa asbaha hada sharcan muttabacan min qibali almuslimina ila alan te nga koy jàng ci wala xabasha laha alaaka afriqiya ka kulli laha alaaka watida afrique am na relation bu am solo ak histoire bu baax a baax bu dëgg dëgg ci ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak l'islam bu baax bokk na ci yiñ mën a joxe misaal xam nañu ki njëkk a màggal yonent bi mooy Bilaal ولكن كان من افريقيا وام الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم ام بركه ام الثاني بعد امينه رضي الله عنها بركه رضي الله عنها كانت امه الثاني كان يقول عنها امي بعد امي وهي حبشية وإفريقية كمان وهناك علماء بارزون إفريقيون مثل حسن البصري أصله حبشي وغيرهم من العلماء wal udabaa wal lugawiyiin wal muhaddisiin wal fuqahaa wa aslul xabasha wa aslul afriqiya kaman lisa afriqiya lahaa makaanan baarikan fi taarix al-islaam wa fi taarix al-bashariyati al-xadaara al-bashariya kakull. shukran maali ziiru eh, eh, ba ma sual jërëjëf monsieur ambassadeur ñu ngi lay sant bu baax gis nañ taxawaay am solo yi nga xam ne nañ ko def ngir taxaw ngir dëgëral jëflante diggante Sénégal ak Éthiopie rawatina Touba ñu ngi lay sant bu baax baax ci eh, jëflante boobu noonu waaye naka nga gisee yi nga xamante ne moom la jëflante yi nga xamante ne war na am diggante Sénégal ak Éthiopie ci wàllu dundinu société ak ci wàllu économie GPA lahu taarixun relation bi nga xam ne moo dox diggante euh, Sénégal euh, ak Éthiopie am na histoire bu yàgg. fii qabla xamsiina sana. lu jiitu juróom fukki at ci ginnaaw aksar min xamsiina sana. Euh, wala lu ko ëpp sax. fii tisaash wa alf wa tisuumia وست واحد وستين فتحت السنغال سفارة وبعد ثلاث سنوات في 1964 فتحت إثيوبيا سفارتها في دكار سنغال ولذا علاقتنا لها عمر طويل جدا وعلاقتنا طيبة إن شاء الله ولكن سنعمل مزيدا لتوطيد هذه العلاقة

moom day continuer dinañ fexe itam moom gën a rafet muy jëflante bi ñu jëflante. awdatan salima mu gën a nekk diggante boo xam ne bu ratax la boo xamante ne bu rafet jëflante bu rafet moo ci am boo xam ne bu gën a dëgër lay doon incha allah jërëjëf euh, euh, monsieur l'ambassadeur ñu ngi lay sant bu baax ci siyaar bi nga xam ne siyaar nga ko fii di la sant bu baax nga xamante ne jox nga ñu ko euh, nangu ñu dalal gi nga dalal na lañ ci ñu ngi lay ñaanal nga dellu ci jàmm waaye ñu ngi lay ñaan tamit ñu gisante waat ay yoon yoon ci gën a dëgëral euh, li nga xamante ne mooy relation Sénégal ak Éthiopie waaye rawatina nag Touba euh, ak jullit ñi nga xamante ne ñoo nekk foofa jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفيه عن نكدي